ñuy seetaan ci 28 Pro TV mbokk yi ñu ngi am mbégte ànd ak yéen ci spécial tabaski bi euh, ñu ngi ñëw nag fii ci Touba Gare bu Ndaw fii nag nga xam ne moom la ñu yàkkamti woon a ñëw. fas yéene fee taataan ci ay information ak tamit ci waxtaan ci saafonte ndax ñu ngi ñëw ci euh, kilifa gu mag di le président du parlement de la CEDEAO honorable Moustapha Cissé Lo euh, ñëpp xam euh, li nga xam ne moom la nekkee ci réew mi waaye nekk kenn ci ki nga xam ne moom mooy njiitu mi président Macky Sall honorable monsieur le président ñu ngi lay nuyu di la dalal ci 28 pro. Séni maa ngi lay sant bu baax di. la wax bismillah fii ci suma kër euh, di nuyu it ñëpp ñi nga xam ne ñi dañuy seetaan sit bi ak émission bi ci Sénégal euh, ak ci diaspora bi mais nga may ma tuuti ma siyaare suma sëriñ sëñ Muntaxa Mbàkke xalif général des Mourides siyaare boobu ma teg ko ci jëwriñam ju mag muy sama sang sama sëriñ sëñ Moussa Nawel mu Cheikh Moustapha Bachir ak njabootu xaadimu rasul yëpp maa ngi nuyu it bokki Mbàkke yëpp bokki région de Diourbel mais à travers ce micro bi it ñëpp ñi nga xam ne ñi ngi nekk ci biir Sénégal ak sénégalais yi nga xam ne ñi ngi dëkk ci bitib Sénégal muy diaspora bi. Mhm. alors euh, monsieur le président euh, tabaski euh, la ñu nekk nii ci la ñu génn mu nekk euh, benn tabaski boo xam ne ni mën nañu ni tabaski spécial la parce que euh, dañ ciy jëkkatee jàngatee moom mooy discours xalif général des mourides yaakaar naa ni déglu nga ko ban jàngat nga ci am mooy discours bi nga xam ne moom def na ko. Euh, li am solo mooy ñun taalibi xaadimu rasul li nu gëm mooy sëriñ bi muy xalif général des mourides bu yëkkatee kàddoom fépp fu mu jëm ñun dañu war a daw dàkk ko foofa xam ne foofu mooy yoon wi kon siyaare bi ñu ko siyaare dañ ci boole di ko xamal ne lépp loo xam ne lii moom digal nañu ko te mu dëppoo ak sunu lislaam ak sunu ngor dëppoo ak digal yi xaadimu rasul ci loolu la ñuy dox incha allah euh, may lancé it appel ñi nga xam ne nun noo bokk langu politique gi euh, ñu xoolaat sunu bopp bu baax ndax Sénégal àgg na foo xam ne fii képp koo xam ne yaakaar nga ne yaa ko moomal sa bopp yaa ngi nax sa bopp ndax ku nekk dafay juddu dëkk fii muy ab journaliste muy ab euh, politicien muy ab baykat muy même mala yi nga xam ne dañoo dëkk Sénégal ñoo tollu wàccuwaay ci réew mi kon nan xoolaat sunu bopp te xam ne Sénégal kenn du ko defar sunu place ñoo koy defar sunu bopp ñoo koy defar ci wegante ñoo koy defar ci xam-xam ñoo koy defar ci bëgg sunum réew ñoo koy defar ci xàllal yoon sunu doom yi nga xam ne yi ñoom ñoo topp sunu gannaaw ba ñu mën a continuer ëllëg li nga xam ne ñun ñi tàmbali nañ ko muy liggéey boo xam ne dañ koy liggéey ngir njëriñu askan wépp ñu bokk ko. ban appel nga ci indi ci euh, discours bi. li may digle rek te xam ne man ci lay ne mooy nañu fexe ba jàmm am ci réew mi mm-hmm. loolu it ci sa micro bi maa ngi koy wax pour Afrique gépp ndax du Sénégal rek jàmm mooy base du développement tant que nit ñi nekkuñu ci jàmm ak dal. bu ñu amoon pétrole bi gën a bari am gaz bi gën a bari am jamaa ak or réew mi du dem ci développement développement mi ngi am ci dal kon nañu xam ne Sénégal kenn moo koy yor ñi ngi jëm ci ay élection présidentielle ñu bëri yëkkati nañ seen kàddu ñenn ñi xamal nañ seen bopp ne Sénégal duñ leen fal ci lu wér ñoo xam ne tey bu ñu demee élection ñu am 1 pour cent ñooñu jàpp naa ne dañoo waroon a xoolaat seen bopp dem jàngat li ñu war a def seet lang ga ñu war a féete mais tey làmb ji ku nekk a ngi tëgg dënn ku nekk tëggal përëg te ña koy wax boo demee élection mënoo am benn député bu mat defe naa ne boo demee ay élection bëgg a wax wax ju ñaaw lay doon bëgg a xaste lay doon bëgg a nekk di wax loo xam ne li amalul njariñ réew mi ñun nag yow nanu ndax dañuy dox man damay dox fonctionnaire international la fu ne laay dugg mhm. gis nañ ne am nañu taxaw ak xaalis bu bari ndax dégg nañ pétrole ak jama pare pour jox ko nit ñoo xam ne Sénégal ñoru leen pour ñu jaxase Sénégal bu boobaa nag ñun taxawaay bi ñu war a taxaw daanu ko taxaw ndax lu bari dañ koy xam. kon dañoo bëgg ñu dal nekk benn ànd xam ne Sénégal moo nu ëpp ñun ñëpp Sénégal googu ñu ëpp nag ñun ñëpp dañ ci bokk. wormaal kàdduy kilifa yi nga xam ne ñooy joxe ndigal te xam ne ndigal yi ñuy joxe joxewuñ ko pour seen poos dañ koo joxe ngir lu yokk Sénégal dañ koo joxe ngir lu dalal Sénégal dañ koo joxe ngir li nga xam ne moom la diine digle mooy jàmm salaam kon loolu rek laay wax ci message boobu. gannaaw discours xalif général des mourides ñu ñëw ci discours président de la république mu ne jeex na léegi li nga xam ne moom mooy dialogue bi léegi li mu des moom mooy que ni woote na ko ba euh, ba tàyyi léegi li ñu jóg ma nag moom mooy élection présidentielle euh, discours boobu noonu ban jàngat nga ci am yow en tant que koo xam ne ne kenn nga ci ñoom euh, laataa ñu ñëw ci seen waxtaan yéen ñaar. mais président wax naa ko ba tey dialogue na dialogue mooy nit ñi échangé ku nekk wax xalaatam président woote na nit ñi mi ngi wax ak ñoom. ñin nangoo dem dem nañu ñi ni duñu toog ak président te amuñu benn légitimité lank nañu ñoom nañu assumer seen part de responsabilité mais président de la république mooy clé de voûte des institutions moom la ñu fal moom la Sénégalais yi fal ak 66 pour cent ni ko yow yaanu doy pour juróom-ñaari at jeexagul kon mu demaatit assemblée nationale ñu joxaat ko majorité écrasante mu dem référendum am majorité écrasante kon ki nga xam ni moom doonul dara ni du wuy ji président du wax ak moom du ko déglu ba pare bëgg ñu def li mu xalaat kooku moo tooñ bu boobaa président moom li ko waroon def na ko loi yi assemblée nationale voté nañ ko parenage am na ñi am parrainage ñooy nekk candidat parce que loolu kenn mënu ci dellu ginnaaw bu ñu demee danañ valider conseil constitutionnel candidat yi ñi nga xam ne am na bu demee daañu voté bu kenn amul 51 pour cent ñu dem deuxième tour am na Mali bi mu amee Mali président sortant ba gagné na kon it lu mel noonu la ñuy séenu dañuy séenu ñu respecter démocratie respecter loi daañu dem sunu candidat Macky Sall man de mooy sama candidat le 7 octobre ci stadium Iba Mar danañ fa def ndaje bu mag a mag a mag a mag stade bu fees loolu horizon deux mille vingt ak yokkute moo koy def ndaje boobu buñ ko defee lañ ciy bëgg mooy investir sunu président Macky Sall déterminer nan la ñuy ànd ak moom dem def li ñuy wax la grande offensive pour la réélection du président Macky Sall au premier tour Dakar lañ koy tàmbalee ñu bàyyi benn ruq benn ruqaan ba ba ñuy agsi Touba ak Mbacké bu boobaa ñun jàpp nañ ne Macky Sall li ñu sasoo mooy fexe ba jox mat 60 pour cent ci fi nga xam ne mooy axe Dakar. Mbàkke bi nga xam ne un tiers de l' électorat sénégalais fi la foofu la sunu xeex loolu la ñuy jàppale président région yi des daañu góorgóorlu fexe ba président mën a gañe dès le premier tour bu gagné premier tour mais ku bëgg a toogaat ci waxtaan wi waxtaan wi day continuer ndax àddina du yem ci élection bi élection yi day ñëw di demaat ndax buñ paree élection local day am yeneen élection législative di ñëw kon président li ko war def na ko ñu ngi ko ci encouragé na continuer ba ba ñuy àgg ci élection ku bëgg waxtaan ak moom na waxtaan ak yow mais nag loi yi ak règle de jeu yi mënatuñ ko changer. ci liñ fi ne ci la ñuy dem élection ndax li des ci élection yi ak fi nga xam ne moom la CEDEAO wax defe naa ni tuuti ci kanam ñu dugg ci date bi nga xam ni juróom-benni weer la kenn mënatul a laal constitution kenn mënatul laal loi électorale na nit ñi gëm yàlla te wuti mbooloo ba booy laaj baatu askan wi nga xam ni askan wi liñ lay jox ñoo la ko jox yelloo nga ko man loolu rek lay digal am ngeen euh, confiance que ni maanaam li ñuy dëkkmal muy présidentiel bi euh, bokk ngeen ci ñi mala bokk gañe ngeen ko ba pare. non kenn mënul wax làmb ju amagul sifflé guñu mënoo wax gañe nañ ko. ko waxee dama déggagul benn euh, candidat wala bu taxaw boo xam ne war na leen mën a jaaxal. déedéet ñun du nu defee noonu. dañuy respecter sénégal yi. sénégalais yi ñoom moom seen carte électeur mais bu dee dem nañ ci li président Macky Sall digoon askan wi bi muy laaj réew mi 2012 muy yoonu yokkute mu dem ba ci kanam mu tabaxaat ko muy PSE ak li mu def ci PUDC def ko ci social à travers le plan Sénégal émergent def ko ci matière d'infrastructure ak agriculture ak élevage ak pêche li nga xam ne def na ko ci diaspora bi président Macky Sall amuñu benn déng-déng boo xam ne bii bu nu waree Sénégalais yi leeral leen ne seen doom ji ngeen doyloo woon def na lii ci lim leen digoon dese na ko benn mandat boo xam ne bii bu ko amee li des dana ko defar ba mu baax li manqué ci liggéey bi xam ne am nay rëq-rëq ci quelque part dana ko jubbanti defe naa ne Sénégalais yi du ñu wutaat ku bees dañ koy bàyyi mu def deuxième mandat ñu doog a jëm feneen loolu moom rafet naa ci njort jàpp naa ne président de la république lu bon bon bon bu ñu demee élection dana am lu ëpp cinquante cinq pour cent premier tour loolu mooy sama xalaat ndax législative yi passé amoon nañu quarante neuf pour cent yu tegal te bari na ñoo xam ne ñi gannaaw gi ñëw nañu fekk si ko te ànduñu woon kon loolu rek mathématiquement day wane ne président jéggi na cinq cinquante pour mhm. alors euh, moom président de la république euh, ci loo xam ne lu bett askan wi ñëw euh, seet si woon xalifa général des mourides euh, mu jugee fi ñu tabaski ba ca ëllëg sa ngeen daal di am benn daje boo xam ne nii peut-être daje waxtaan la ak éclaircissement wala compte rendu boo xam ne dana koy defal ci audience bi nga xam ne nii amoon na ko ak xalifa général des mourides loolu ban eko nga ci am ak lan ngeen jàpp ne moom lañu ñu war a waxtaanee. ci président de la république euh, euh, avant muy ñëw man gisante nanu euh, yéen a jim ma waxoon mooy bëgg na ñëw Touba visite privée waaye nag la mu doon wax ak xalif général waxuma ko bëgg na ñëw seet si ko visite privée wax na ma ko loolu laajuma ko moo ma ko wax bi mu ñëwee it ba jóge fi démb rek gise naa ak moom ndax demoon naa siyaare ko ci pale bi waaye waxuma ak moom lan la wax ak xalif laajuma ko ndax loolu euh, suma yar ak suma teggin mayuma kilifa tol ne président de la république Macky Sall ni dafay seeti xalif bi visite privée euh, jóge fa may ma lu tol ne ma ñëw du audience ma ñëw siyaare ko ci bisu julli ni ko ñu bari defee euh, may dem naan ko loo doon wax ak xalif général des mourides kon lañ waxante waxuma ci dara laajuma ko ci dara waaye lañ waxante xam naa ne li ma ci mën a wax mooy lu jëm ci réew mi lu jëm ci jàmm lu jëm ci it yokkute pour askan ndax ak sàkku it mu ñaanal ko mais président de la république dox siwul lu passé loolu jàmm lu lu génn loolu peut-être ay jalon yu ngeen di teg yéen ñaar pour présidentielle bi ndax waxtaanu leen ko fa waaw waxtaan naa ko président bu yàgg ba léegi ñi ngi waxtaan ndax déggoon ngeen Euh, discours bu ma defoon waxoon leen ni man génn naa ci coordination yi nekkatuma ci secretariat exécutif génn naa ci mais nag président Macky Sall laa àndal. président Macky Sall mooy suma candidat kon kay forcément dinaa waxtaan ak moom ci nan laa koy war a jàppale ak lan la may sas. pour ma def ko loolu am na lu ma sas defe naa ne le 7 octobre loolu lépp dina leer parce que média yëpp daañu ko jël du ma en politicien bu ñemee taxaw ni def na un centième mu li ma def ci Mbàkke amul kon yooyu wax ju yàqu la donc jarul sax ma ci tontu ndax li ma man Mbàkke ak Tuubaa kenn mënu ko fi kenn mënu ko fi tey parti APR bu xeebee li ma koy defal day perte kon loolu mooy wax bi nga xam ne moom lay répété ku mu neex nag jël rajo yi wax lu la neex mais bu jëf jotee danañ xam ne li ma fi man man may général bi ci Mbacké ak Touba te je resterai le général. ñeneen di réclamer pour nga dellusiwaat. loolu moom wax naa ci li ma ciy wax <laughs> vraiment. Euh, euh, léegi Moustapha Cissé Lo euh, moom nag ki koy laaj jaxate la sant noo tabaskee sa tabaski moom dafa mel ne maanaam da ngaa ñëw sonn de. <coughs> <coughs> xam nga man ni may politiquer dafa bokkul ak nit ñi politique sociale lay def. Dakar ba Touba ba dem Louga fu ma am mbokk akum xarit dimbali naa la ci tabaski loolu moo ma gën a ñor mais boo ñëwee xar bi may tabaski xar bu yema may la parce que defe naa ne bi ma rey pour ñu añ ci ñaar fukki junni ak euh, ñaar xawma ñeent laa ko jënde xam nga loolu du xar bu rëy rëy mm-hmm. waaye jox naa ay nit xar yu rëy a rëy loolu moo am ci man solo ndax li doon pour man tabaski gi mooy tóor deret ji eh, roy maam Ibrahima la mu defoon tey ñaan mu am barke waaye nag ndimbal yu bëree bëri moom def naa ko ci tabaski gi Dakar eh, muy samay karit eh, Mbacke Louga Darou Moussi Thiès fi nga xam ne am naa fi mbokk euh, te ñu sollicité ko li ma man def naa ko pour dimbale déedéet sonn ma aw ma benn problème ndax man li ma la wax xam nga xar mu ndaw moom euh, xar mu ndaw du sonal kenn ndax man ah. la may lekk amul graisse tuuti laaj ci cof lekk ko tëdd gis nga ma nii ni ma jàppe forme. Euh, alors 28 euh, Pro TV nag 28 Pro nekk na euh, benn site boo xam ne nii day yëngut ci wàllu maison de production la boo xam ne tamit day yëngu ci ay yeneen prestation de service ñëw fas yéene ànd ak yow di liggéey ak yow noo ko gisee moom ci ay xale yu ndaw yoo xam ne ñi ngi dëkkee Touba ak Mbacké noo gisee seen taxawaay ak loo leen di ak loo leen di xelal. di leen sant parce que baat bi ma waxoon rek Sénégal kenn moomu ko ku nekk ci domaine bi ngay yëngu. war nga gën fexe mu gën a yokku euh, ay xale bu ñuy def noonu ñun duñu mën lu dul domaine bi nga xam ne mën nañ leen ci jàppale ak accompagner leen ci euh, ñu accompagner leen ci parce que suñuy doom lañu suñuy jarbaat lañu comme ñi ngi góorlu te nekkuñu ci lu diine tere ak ngor te li ñuy def ñoom buñ ko defee dina yokk réew mi dana yokk jis gisu nit ñi ci lu bëree bëri euh, ma leen ci encouragé di leen ci ñaanal di leen xamal ne loolu ñu nekk ànd naa ci te lu ma ci man dinaa leen ci jàppale. Mm-hmm. Mm-hmm. merci beaucoup kon nag euh, mu nekkoon nag euh, honorable Moustapha Cissé Lo président parlement CEDEAO waaye tamit nag nekk kenn ci réew mi nekk kenn également ci président de la république Macky Sall li nga xam ne moom la ñu fas yéene ànd ak yéen ci li nga xam ne moom mooy horizon 2020 Euh, naka la fas yéene taxawee euh, ci euh, présidentielle 2019 yi jàppale ak candidat nga xam ne déclaré ko wax na ko muy le président i Sall moom la fas yéene gungewaat ba mu amaat deuxième mandat mbokk yi doon seetaan 28 Pro TV ñu ngi am mbégte di kontaan ci yéen baax baax di leen di daje beneen yoon ci yeneen jotaay.